وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاج بابا كردلو نالو نيو بي اك زيار بي نيو نا اوديتيريك اوديتريسي بي زيار لين يبلو بس بي استاذ واو بابكر يبل بي تي جي دافا جيم تي باتو سانت يالا جولي بو نيك وار نكو ديف دا نا گنا يوار سخ بو نيت كي ييو سب اي تانكام فودو يكني دار ميتي وكو ولا مو يكني ليكاي ميتي باريول ولا مو يكني am na loo xamante ni bii mi ngi ko doon yóotu sunu borom jox na ko xataa dund gi wala wér gi wala njaboot bi wala liggéeyukaay bi moo tax nit ki fu mu toll dafa war di sant yàlla xaaj Babacar sant la nag am na lu ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin nit ki mën na ko def bis bu nekk lu mu tuuti tuuti mu di ko def téeméeri yoon ak ñeent fukki yoon ak juróom ñetti yoon muy 148 fois mais su ko defee ba mu mat cent quarante huit hmm. na koy tëjee allahuma laka alhamdu xatta tarda allahuma laka alhamdu xatta tarda wa laka alhamdu ida radita wa laka alhamdu baada rida xaaji babacar hmm. lii daal ku koy def sunu borom ku sant mu dolli la la nga nekkoon ci teraanga day gën di jëm kanam hmm. waaye du wàññeeku xaaji babacar oustaz